dañ ciy profité rek di ci waxaale loo xam ne euh, actualité la jamono laaj na ko ñu war cee waxaale tuuti rek muy fii jamono toll mel na ne jamono ji tali bi xaw naa tàng tali bi moom xaw naa tàng lool ñu ñëw ba ci bisub Sëñ Abdou Khadir war nañ fa dékk sunuy loxo ñaan ci yàlla ci yërmande mu wàcc yërmande ci réew mi ba accident yi daal yàlla na wàññi ko waaw ñu ngi ñaan yàlla ci bàkku Sëñ ba accident yi moom yàlla na yàlla na wàññi ko bu baax a baax jeex moom lépp lu koy def yàlla la soob lu bari yàlla la soob waaye ñoo ngi ñaan yàlla ci barke Sëñ Tuubaa ci barke Sëñ bu Khadir mii ñuy defal bis bi mu wàññi ko ba jeex takk li ci nga xam ne ñoom ñoo ko yore muy e, ñiy dawal oto yi ñu ngi leen yi ñaam nañ nañu xoolaat yàlla mooy dogal de waaye lu day am ndax kuñ joxub oto oto boo gis boo ne wax nañ la li nga ko war a dawale léegi ñu gën koo respecté rek te tey gën a yërëm nit ñi ci loraange yu bari yooyu loolu moom loolu rek lañ ciy wax ñu ngi ñaan ci bis bii loolu wàññi ma sa dégg gi ci lu noonu dañ koy naqaru dañ koy dañ ci am mu tiis waaye moom de da cee da cee rawate wax dëgg yàlla ndax su niñ ko waxee ci màggal gi la jëm si woon far yàlla dogal loolu dalee ko ci kon nag am nañ yaakaar ci yàlla mii sunu borom te bari yërmande lool te yaatu la ko murus sëriñ Abdul Xaadir ci Seex Amar ba la ko jot a wokki na yam foofu na ko la ko jot wokk rek na yem foofu yàlla yëkkatiwaat ko mu àggale ab liggéeyam ma ñu ngi koy masawu coono ak ñam àndaloon ñëpp ak mboolem ñoo xam ne lu mel noonu dal na leen ci réew mi ñu ngi ñaan yàlla dal sunu borom rus ci sëñ Abdul Xaadir yàlla yëkkati ko mu dellu ci biir ci bopp si